mubaarak dafa nekk ab surga ci njaatige lu bari alal lool bari ay tool lool njaatige li yebal mubaarak ca tool ya ngir mu di ko ko toppa tool mubaarak dem ca tool ya nekk fa ay weer yu bari benn bis njaatige li dem ca tool ya di seeti mubaarak ànd ak lenn ci ay xaritam njaatige li wax mubaarak ni ko may ma lenn ci résin ak grenade ma mos mubaarak andil loolu njaatige la jël raisin ya ak grenade ya tàmbali di lekk waaye ba muy lekk mu seetlu ne la ko mubaarak andil ñorut njaatige li ni ko mubaarak li nga ma jox ñorut xanaa xàmmewoo lu ñor ak lu ñorut mbaa sax nga mos ko ba noppi mubaarak ni ko yebaloo ma fi ngir may mos ak a lekk waaye danga ma fi yebal ngir may toppatoo tool yi njaatige li ni ko kon diirub ay weer mësoo ci mos benn doom mubaarak ni ko wallaahi mësuma ci mos benn doom bàyyiwuma la xel nag yow waaye yàlla sama borom dong laa ragal moo tax du ma lekk mukk lu ma amul ndigal njaatigéli foog ni mubaarak day sax kaf njaatigéli dem ci lenn ci ay dëkkandoo ya dëkk ak mubaarak laaj leen ñu ne ko dëgg la day kii day ak mbaax rek lañ gis ci moom te it mësuñu gis mu lekk ci tool bi njaatigéli ni ko gannaaw xam naa ne loon kon ko dëggu nga dama la bëgg a laaj ci am mbir dama am sama doom bu jigéen ñu baree baree bare bëgg ko ci ay boroomi alal ay doomi ay buur malay laaj kan laa ko ci war a may gannaaw ba ma xamee ni ku baax nga mubaarak ni ko yahuud yi danañ may seen doom ngir alal nasaraan yi may seen doom ngir taar rab yi may seen doom ngir askan mbaa judd bu rafet lislaam di maye doomam ngir ku ragal yàlla yow nag xoolal kan nga doon ci ñoom nga def loolee njaatige li ni ko man dey gisuma lu gën ak ragal yàlla teyit yaakaaruma ni danaa gis ku la gën a ragal yàlla léegi dama lay may sama doom ji gannaaw ba ma la gorelee ba noppi ni ko nag li tax ma def ko mooy seetlu gu ma seetlu ni am nga mbaax ak ragal yàlla ndax danga ragal lu ndaw ngir bañ ci daanub yàlla ba te yàlla may la nit ak tool ba yépp yonent bi nee na kat ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla jox la lu ko gën mubaarak takk na soxna sa ñu nekk ab diir yàlla wërsëgal leen doom bu góor mubaarak tudde doom ji abdullah doom ji nag mooy abdullahi ibnul mubaarak kon abdullahi ibnul mubaarak mi ngeen di dégg ci nii la juddoo abdullahi ibnul mubaarak di boroom xam-xam bu mag liggéey lu rëy ci lislaam daanaka li mu jàngal ci ay boroom xam-xam yu siiw ëpp na fukk ak juróom kon li ma ci bëgg a fàttali mooy ndaw yi nga xam ne ñi ngi ci ay béréb di liggéey nañu ko seelal ngir yàlla ànd ci ak ragal yàlla te di suur yàlla ci lépp lu ñu def mbaa lu ñuy wax ndax loole mën na leen a jural réussite àdduna ak réussite àllaaxira bari na ay doom yu baax lool ci àdduna tey seeni jur ba ñu nekk ndaw dañoo sonnoon ànd ak ragal yàlla bu ngeen ko fàttale mas naa leen a way jur wu góor ci Cheikh Xalil al lam doon liggéey ba yàlla may ko doom ju mel noonu kon yéen samay bokki jullit ku bëgg way wu rafet ci àdduna ak ëllëg bàyyi fi doom ju baax fexeel ba looy def nga ànd ci ak ragal yàlla yàlla nee na képp ko ragal yàlla yàlla defal ko ak ubbee ci lépp lu mu dugg te it yàlla defal ko wërsëg wu yaatu woo xam ne du woon masa yaakaar ne dana ko am nañu ko bokk bàyyi xel